régime war na ko am donc loolu il faut faire la part des choses il faut ñu dissocier exactement euh, li nga xam ne moom la parole de l'opposant et la parole justement euh, de celui qui est mm-hmm. actuellement ou bien qui détient le pouvoir il faut ñu il ko xam nga nag le plus souvent au Sénégal nit ki dañuy dañuy dafay wax mais du ñu comprendre exactement on n'essaie même pas de chercher pour comprendre exactement l'idéologie euh, maanaam l'essence de ses propos euh, Birame Souleye Diop si na fi ay kaddu ga yi commencé jow lu nekk dégg na ko tey c'est Waly Diouf Bodian mais quel qu'en soit les situations je le dis je le répète encore une fois je pense que tey jii coow li sa war na nekk feneen parce que on a des a des urgences ci biir bu Sénégal on est en train de parler aujourd'hui euh, de la diminution de la coût de la vie au Sénégal mi nga xamante ne dafa cher excessivement cher de la loyer de la en tout cas ci nga xam moom moo jëm ci wàllum euh, dund les prix qui sont exhaustifs mais euh, je veux dire excessifs mais naka la ñuy def je pense que priorité bi foofu la war nekk que parler de la politique mm-hmm. deux mille vingt deux mille dix neuf ba deux mille vingt quatre dañuy wax ci wàllu politique. on a vu ce qui s' est est ce que élection dina am kan lay am est élection du am kan mooy nekk candidat kan moo dul nekk candidat Ousmane Sonko dina bokk Ousmane Sonko du bokk lii moo tax du bokk lii moo tax dina bokk Ousmane Sonko aujourd'hui ñëw nekk premier ministre on a vu élection am na Bassirou Diomaye moom mooy président il faut impérativement que ñu jàll ci leneen ñu ñàkk a nekk concentré wu ci politique parce que su mu ne weesu merci Senghor njëkk dund boobu ngay wax dinañ ci ñëw parce que le 15 monsieur Moses <laughs> Bamba lañ ñu joxoon tey le nouveau régime que ni dinañu wàññi dund gi mais balaa ñuy ñëw si loolu ak yow.